Monsieur le maire Lat Diop. Je t'appelle monsieur le maire parce que li nga ñëw fii di joxe ambulance liggéeyu maire la te yàgg nga ko def. waaye je t'appelle monsieur le maire parce que Golf Sud man de yaay suma candidat yaakaar naa ne di nga gën. face ak Diop mais je t'appelle monsieur le maire parce que la population de Golf Sud yàkkamti ñu nga nekk maire Golf Sud donc monsieur le maire merci beaucoup d'avoir partagé ce moment important te li am solo ba am solo mooy liggéey moo gën wax bu bëri boo nekkee ci xeex nag defe naa dóor moo mën saaga lii nga def jël alal ju takku def ko ci loo xam ne njëriñu collectivité bi la te nga yàgg di ko def soo ko defee tey duñ ne guleet waaye soo ko defee population de Guédiawaye de Golf Sud et surtout du littoral dinañ la delloo njukkal ndax won nga leen solidarité en tant que fils du waaye won nga leen solidarité en tant que manager public won nga leen solidarité en tant que leader politique sa osmose ak population Golf Sud man de xam naa ko moo tax coow li ba mu baree ba bare ba bari ñu naan waaw pourquoi monsieur le maire candidature Lat Diop gënal ko ma ne leen ay ca Lat Diop bu nekkul candidat ay Lat Diop bu nekkul candidat kon xare bi dina métti lool lool lool man nag du ma nekk ci guerre gis commando boo xam ne dafa am avion de combat am char de combat am mitrailleuse am pistolet am jaasi am poignard mu ne mbëkk mu ne door ma teg ko fa mu ne jël nag ay yàmbalu munuñ ma wax ne tànnal mbër munuñ ma wax tànnal mbër ma bàyyi fi ab Balla Gaye di tànn ay xuus màññe du ma ko def waaye am solo président de la république na fi ñun xam nañ fi président bëgg a ci yoon boobu la nekk. macha allah. am na nag ñu xamul waaye nañ leen xamal ñu ñëw ànd ak ñun jaar ci yoon bi président bëgg ñu jaar. wax ji loolu li ñu bëgg mooy gagner très largement les cinq communes qui constituent le de Guédiawaye pour remettre de façon plus brillante. le département de Guédiawaye entre les mains du président de notre coalition, le président Macky Pour cela, nous devons choisir les meilleurs candidats. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est l'unité. Et c'est pourquoi je voudrais appeler tous les acteurs patriotiques, et non politiques. Comme Nico le maire l'a dit, a venir se joindre à nous, à constituer des listes de diversité. su fekkee ne li ñuy woote mooy bëgg Sénégal ak surtout bëgg président li ñuy woote mooy gëm coalition bi nit ni ni ñu bàyyi seen bëgg-bëgg fàtte seen bopp ñëw ci li président décidé ñu jàppalante ji ndax ñu am victoire loolu moo tax may félicité ay personnalité yu mel ni Amadou Fall bu mekk li mu liggéey ci gox la plupart ci boppam ak vision bi mu am ak ambition légitime bi mu am lépp la ne da koy teg ci loxo le maire la Diop ñu ànd au niveau de Golf Sud et de Guédiawaye pour naka noonu lay saluer le fils de Guédiawaye le bi nga xam ne Guédiawaye yëpp ñu ngi am ci moom respect ak estime muy mon cher ami Malick Sène moom it contribution am ci bi ak représentativité am kenn nattablewu ko kon su jógee nangu jàppalante ak lat ñun ñëpp ñu ànd ci yoonu coalition kooku comprendre na fi ñu bëgg a fi ñu bëgg mooy l'émergence continue du département de Guédiawaye sous la direction du président Macky Sall naka noonu maa ngi remercier tous les partis y compris même des partis de l'opposition parce que une bonne frange di PDS en tout cas ici à à rejoindre la mouvance et va nous accompagner à cette élection. Je voudrais remercier le Réumi, membre éminent de notre coalition, qui joue déjà un rôle actif. Je voudrais appeler l'ensemble des partis de Benoît à se mobiliser comme un homme, j'allais dire comme une femme, déterminée, seulement intéressée par la victoire de Benno pour le triomphe du Sénégal à rejoindre cette mouvance gagnante, cette mouvance patriote. D'autant plus qu'on nous le doit. Nous avons toujours été les leaders de cette coalition et nous avions accepté régulièrement, après avoir gagné, de par la solidarité, de partager le pouvoir. C'est ainsi, comme vous le savez, que cette commune est aujourd'hui dirigée par le Parti socialiste. Nous pensons humblement que c'est le moment de redonner à l'APR ce qui lui revenait de droit, mais qu'elle avait accepté de céder. Et c'est pourquoi j'appelle le Parti socialiste du fond mon cœur, parce que nous avons cheminé ensemble, et parce que je crois que ces dirigeants croient à la coalition, à se rappeler 2014, quand nous avons accepté de céder la place. Pour eux aussi, cette fois-ci, accepter de nous céder cette place pour que la coalition puisse continuer et pour donner le plus grand nombre de chances à cette coalition. Parce que la candidature de l'adjoint non seulement est politique, mais elle permet à la jeunesse qui aspire qui aspire au renouveau, qui aspire aux nouveautés, qui aspire à la, à la régénérescence du leadership. Cette candidature de l'Adjob permet donc de nourrir l'espoir et de gagner assez facilement la présidence. Je demande à toutes les franges de la paire de se mobiliser pour le seul Parce que finalement, certes moi, mon désir personnel, autant la job me promet Guédiawaye, autant la job je te promets Golf Sud. Euh, te nag xam de ah, moo tax gaa ngi wax waaye man jógaguma xam na ne. maa ci xam dara. waaw la la commencé gul sax. gestu rek lii yëngatu. yi keroog dañoo dugg ci dëkk bi waaxu ñëw rek gars mer di saaga. ma ne leen garaawul ma ne leen di saaga kuy dóor moomu ci saaga. waaye ñoom du sax. ndax soo àndee ak say rakk ak say naatandoo parfois da ngay ñu bañ a gis li ngay gis. da nangu waxtaan ak ñoom maslaak ñoom ci loolu la ñu nekk moo tax maa ngi woo force APR yëpp nañu réaliste te xam ne balaa nga naan naam ne fa nekk nag am lu la naqari di ko kaas boo gën bañ a am koo kaase nañu waxante dëgg li lépp li di wax ne mën na ko lépp soo gisee moom c' est parce que président Macky Sall mooy président ah, c' est que Benno Bokk Yaakaar moo yor la gouvernance publique donc nit ñi bu ñu mbir te nañu delloo modestie nañu delloo si humilité nañu delloo si le sens de l' si solidarité te ñëw ñu liggéey ensemble nañ ko daan defee ngir ñu gañe nañ daan gañe maa ngi leen di sant di leen gërëm moo